merci euh, à mon collègue euh, le président Moussa Diakhaté. Je l'avoue que tu, je l'avoue, tu es un bon, très bon comédien de l'ensemble lyrique traditionnel. Et je pense qu'il faut quand même remercier le président Pape Diop qui t'a laissé son siège en tant que suppléant. C'est important de remercier le président Pape Diop également. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous avez soumis aujourd'hui une proposition de résolution de la commission pour une d d'enquête parlementaire. Cette proposition de résolution a été examinée en mode fast track. Arrête le temps, arrête le temps. Arrête le temps. Ah mais c'est un suppléant dara newu dara newu suppléant dara newu ci dama bëggoon wax vous nous avez soumis une proposition de résolution sur la commission d'enquête parlementaire monsieur le président Mamadou Lamine Thiam vous l'avez soumis on l'a examiné en mode fast track ce qui n'est pas habituel l'article 48 du règlement intérieur dit clairement que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés sur des faits déterminés. Et quand on regarde l'exposé des motifs, l'intitulé de la, de, de l'intitulé de la résolution et l'article premier, on voit qu'il y a une incohérence que nous avons soulevée en commission et que nous réitérons en séance plénière. Donc, puisque dans la résolution, vous parlez d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Et processus électoral démarre depuis les inscriptions sur les la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 février. C'est pourquoi j'ai dit qu'il de cette pour qu'on puisse l'examiner et l'adopter. Sans cette clarification, dans la confusion. Euh, l'autre processus électoral, ça renvoie forcément au code électoral. Le code électoral a été examiné ici, issu du dialogue national et adopté le 5 août 2023. C'est ce 5 août dans l'article L123, qu'on a confié au Conseil la commission de contrôle des parrainages. À l'article L57, on a validé ici le tirage au voter ce code électoral les yeux fermés parce que c'est issu du dialogue national. Donc c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'embarras, c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'impasse. C'est ce que je voulais je voudrais qu'on reconnaisse ñu jàpp ko xam ne dialogue national boobu moo ñu indil cote électoral ñu voté ko le 5 août 2023 ñun on était contre dañu ne woon nañu améliorer texte bi ñu indi fi ay ñu rejeté ko ñu yóbbu ko conseil constitutionnel constitutionnel conseil constitutionnel rejeté ko donc ñun suñu responsabilité suñu jaan wàcc na leneen fu may bëgg a mooy dégg naa ni euh, am na ñu fi critiqué nañu juge constitutionnel mais les sept juges constitutionnels ñëpp Macky Sall moo leen nommé le président Macky Sall donc c'est le président Macky Sall qui s'est trompé dans son choix en nommant ces sept juges constitutionnels donc loolu nañ ko nangu mais Macky Sall moo nommé les juges constitutionnels sept yëpp décret la leen nommé donc loolu su fekkee juge constitutionnel yooyu baaxul le choix de Macky Sall moo baaxul kon loolu nañu war a wax Sénégalais yi comprendre ko leneen li nee nañu report élection képp kuy wax report élection maanaam report élection mënul nekk parce que article 31 de la constitution moo ko dàq moo fixé le calendrier électoral report des élections mënul nekk wax nañ fi article 52 les pouvoirs exceptionnels euh, président da nga juum article 52 Macky Sall mënu kaa utiliser la première benn article 52 ci article 16 constitution française la jógee benn yoon nañ ko utiliser en France c'était en 1961 lors de la guerre d'Algérie et c'était un coup d'état des généro français donc ku fi wax article 52 ku ko def ce sera un coup d'état te day nekk haute trahison leneen li la lu may dégg ñu naan yéen waa Benno Bokk Yaakaar lu ngeen di def nii da ngeen bëgg a jàppale seen candidat raxas deram mais balaa ngeen di raxas deru kenn ngeen défendre ko man dama dama jàpp ni mais yéen waa Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba lan la leen def lu tax ngeen bañ ko ah candidat boo xam ne dafa war a dem campagne électorale ngeen da ngeen di ko woo arrêté campagne électorale pour dégg ko devant une commission d'enquête parlementaire loolu ngeen voté ko adopté ko da ngeen da ngeen bëgg seen candidat bàyyi leen ndaxaate bi fu may mujjee mooy haute cour de justice bi nañ ko teg depuis octobre 2022 ak cour de justice boobu moo mun a juger le premier ministre moo mun a juger les moo mun a juger le président de la république su dee dañuy sunu ndaxantewuñu bàyyi leen électorat bi ngeen di ndax. bàyyi leen tappale bi bàyyi leen caaxaan bi loolu laa leen wax. di leen wax Sénégalais yi dëgg. le 25 février on ira aux élections incha allah.